حق البكاء على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw julli gi ak xutba bi ah dañuy nuyu kilifa yu baax yi fi teew yépp rek te àll Aliou ak sëñ Abibou di njiit li ci ñoo fi nekkal sëñ abu Baraka mi nga xam ni mooy borom barab bi te moo na fa yebal itam ak sëñ Mouhamadou Lamine Boussa mi nga xam ne mooy jiite ajjuma ji ak mboolem ilimaan yi ak mboolem ñu doon naafila ci weeru koor bi ak mboolem ñu fi doon jaamu si yàlla ñëpp. njabootu sëñ Tuubaa gi fi teew gépp mi mbàkkee bu bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di wax nag wax ji sëñ Abibu moo ko moom ndax moo fi toogal sëriñ bi sëñ Aboo sëñ Aboo toogal fi Seex Muntaxa kon noonu amul ci kàddu lu dul nuyu suñ kilifa yii fi teew yëpp sant leen gërëm leen ci wéttali gi ñuy wéttali barab bi di fi jëwi ndigalul sëriñ bi te lépp jëm ci lislaam ak taalu bi ñu ngi ñu ngi nuyu Seex Muntaxa baax di ko sant di ko ñaanal di ñaan suñu boroom mu dimbali nu yàggal fi ab jataayam may ko wér defal ko jàmm ba li bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mu liggéeyal ko ko ànd ko njabootu Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne ñu ngi ci ginnaawam topp ci moom moom it waxtu wu nekk mu di leen gërëm di leen sant seeni taxawaay waaye di ñaanal di nuyu sëriñ Abo mi nga xam ni moo fi nekkal sëriñ Fallilou te moom barab bi yabal nu fi nu teewal ko fi sëñ Abibu ak sëriñ Aliyu ak bokk yu baax yi ñu àndal yëpp gi fi nekk do ñëboot sëñ Tuubaa yor kàddoom loolu rek lañ amoon ci liñ ciy wax xanaa di soññee rek li nga xam ni weer wi laaj na ko muy weeru koor gi ak li koy tax a sell te muy muurum koor mi ñu farlu ci bu baax a baax a baax ndax niñ koy waxee weeru koor dañ koy aj féeg jullit bi joxewut asakay mburum koor duñ ko jàllale noonu lañ ko waxee ñiñ koy joxit xam nañ leen ni muy tollit borom xam-xam wax nañ wax nañ ko mooy ñeenti mudd ci mudd bi yonent bi sallallahu alayhi mu tolloog ci ni ko borom xam-xam yi nattalee ci gëna a mat ñaari kilo ak liibar walla lu ko mat ci xaalis bu dee xaalis it wax nañu ñu ñaar téeméer baax na bopp bu ne ñaar téeméer boroom kër bi nag moo ko war a génne ak mboolem li aju ci moom su fekkee mënuñu ko waaye war na góor war na jigéen war na gone war na mag ki nga xam ne mooy borom kër gi itam ñamu doon dundal ku wacc mënut moo leen ko war a génneel kon ñu farlu ci bu baax a baax a baax ndax day sellal koor gi di ko gën a setal ci rëcc-rëcc yi nga xam ni doomu aadama mënu ko ñàkk def ci biir weer wi muurum koor moom moo koy setal ba noppi itam nekk ndimbal ci masaakin yi nga xam ni bu tuwoon loolu dañuy wër wër ngir am luñ dunde suñ borom bañ ñu wëreelu ci bis boobu nag tax mu wax diggal yonte mu falatal muurum koor ci ñu jox ko ñoo ñii nga xam ne ñoo ko yeewoo kon kàddu yooyu rek lañ amoon luñ ciy wax lu jëm ci ci sariya bi xaqiiqa bi nag ah, sëriñ bi mu fi nekkal sëriñ bi ak sëriñ Aliou ñoo ko yor muy ndigali sëriñ bi ak i tereem ak li ñu ni taalibe war a mel rek lépp loolu mu ngi ci seen loxo noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla nañ ko teewee na gën a déwén te kenn bañ a màgg ci barke borom Tuubaa مع الأصول التي تنفي الرهونات خوف الرجا معه إكثار حسن دواما بالقناعات